xam nga bi parrainage yi commencé ñëw naa fi. je mhm. sais pas si vous vous rappelez. Ouais, rappelle très bien. je vous ai dit que kii parrainage bi on va le réussir et am na fu leer fu ñu ko teg. Mhm. xam nga parrainage bi en fait on est parti sur un truc un travail avant parce que avant on a mené des ay opérations kay bokk on a fait le tour du Sénégal le président l'a fait no jeunes l'a fait installé partout on a comptabilisé dans cinq cent communes yoo xam ni am nañ fa. des militants du PRP 500 communes. Mm on l'a comptabilisé c'était on a fait un calcul très simple on a dit qu'on a 500 communes chaque commune bu ñu fi amee 10 militants en moyenne. Mhm. c'est une moyenne am na foo xam ne n'est-ce pas 10 militants ku ne nga jox leen benn feuille de 10 ça te fait 100 par commune. Mhm. multiplié par 500 ça te fait 50 bi jàll nga sa parrainage. Mhm. donc on a fait bi bi ñu mayee territoire ba pare loolu calcul boobu la def et que ne leen 10 jours laa leen may gars yi dem 10 jours récupérer tous les kii ñëw andi parce que l'objectif c'était de finaliser en 45 en 45 jours bi ñu ko defee parallèlement on met en place un système technique waxoon naa la ko fii mhm. boo xam ne qui nous a permis de minimiser tous les risques les risques ñu analyser également yenn kii daan am euh, parrainage yi doon am xool les risques de de doublon inter lan moo ko waral mhm. yan région la daan nekk yan type de personne la daan nekk yan tranche d'âge la daan nekk ñu on a analysé tout ça avec des ingénieurs des ingénieurs. c'est un travail entre guillemets scientifique que vous avez fait. Mm-hmm. Mm-hmm. man bi may dem kii j'étais sûr. Mm-hmm. j'étais sûr que dañuy c'est pour ça que le président Déthié quand il disait qu'il était prêt ba ne kii lan ngeen mais nga foog ni nit koo xam ne wóorul boppam. dina dem ba ne bu ma kenn parraineti dem leen ngeen parrainer ñi nga xam ni amuñu. c'est parce qu'on était sûr et certain de pour montrer que li ñu def. waaw ak da ko wane. on est la seule coalition bu valider treize régions sur quatorze. Mhm. on a validé treize régions sur quatorze si ñun onze régions la validé. Mhm. amul sa treize régions sur quatorze. Uh-huh. dans la diaspora on a présenté des parrainages sur dix-huit représentations diplomatiques dix-huit représentations diplomatiques ce qui veut dire que tey le président Déthié Fall dafa nekk au niveau national et au niveau même de la diaspora. Ah, daf si tenir rôle. parce tant que amul assurance te élection moom y a une demande nationale bu ko porter et mhm. au niveau de la diaspora sinon perte temps la mhm. donc on a voulu démontrer ça et on l'a démontré